heure bi heure bi la mu jot six heures et demi sa gan yi ñëwaguñu ñu ci yoon waaw jaaxle Baye deux jours a ngi fanaanul ci kër gi Baye Fall daje nañ fan fan naa sama nijaay day defar ay ndogu bu ñuy ñëw nee na nee na dina ñëw fii dina ñëw kay ah waaw waaw wàccal nga wax sa tante kon mu préparé ko balaa gañee ñëw waaye ñëw oh ah, fekkoon nga ma si daaj yu baax ah. Thank you. waaw kon yaa ngi ci affaire gis nga léegi ma pare. waaw ayca waaw gan yaa ngi ñëw. waaw maa ngi dem préparé wu dégg. waaw incha allah waaw ku ma waay waaw jërëjëf. Wajal ah, wajal waxoon naa la dina ñëw. dimbali ma ngir yàlla Fall boo defee nii man bu ma jooyee du baax Fall dimbali ma waaw waaw waaw déet déet déet waaw noppi la boo defee nii dafay jooy du baax xam ne Baay Faal la li fi jot a jaar ñëpp àdduna seytaane la te àdduna amul solo sama rakk nga jëfinul jëfinu Baay Faal waaye ni ngay doxee Baay Faal du ko doxee te gan yaa ngi ñëw xam nga lu ma bëgg nga jug préparé te nga ñëw si biir dégg nga jërëjëf dawal gaaw def ko fii baax na nga lekk ndànk nag dégg nga non dama ma wax lekk bu baax. waaye lekkal ndànk yow nag déedéet bàyyi jàmm. waaye ba pare tamit na leen. ah demal fële. 14 dina la nii. li nga gis. li yëpp si invitation la. waaw waaw. yaram bi sax. kii sa xarit kii. Eh, muy lekk. Eh, kii tàpp laa fa teel sa loxo ba gan yegg si. waaye waaye war kay damaa ah? jommi fu mu ne nii. lan moo la jomal. lii. ah lii pour yéen la. ba fële. lii pour yéen la. Ah. ay sa kay toog. waay sa ah. Eh. est ce que kay toog. toogal si suuf. ana Oustaz. Oustaz waaw mu ñoom ñoom ñu ñëw léegi dañuy yegg si. ah nag gaaw nag heure bii nit ñaa ngi mënatuma man damaa mën a puus heure. da ngay def ndànk yow mii. ah. ñëpp a xiif. ah. asalaamaaleykum waaleykum Oustaz. Oustaz toogal toogal. bisimilah. bisimilah. naka jamono. ñu ngi sant bu baax. incha allah naka koor. alhamdulilah Oustaz. alhamdulilah. wax Fall. Fall lu xew. nu mu nee tekk ni daf maa jaaxal te Fall moo doon yor ambiance kër gi. ah sama kër gi jàmm ak salaam te Baye Fall mii barki démb dañ fee jàppante ba mu génn kër gi waaye loolu yëpp nag amul solo dem na ba mer ni nañ miraas kër gi te Baye fa ñii miiras ne njaboot gi tas tey buñ miirasee kër gi ma jox la la nga am nga dem ci lan bu koy dugal xaalis ba bu jeexee addu boo retourné waatee dama lay. asalaamaaleykum. <laughs> Baye Oussou. waaw. ah déwénati leen. kontaan nañ de. Ah. waaw waaw. ni nga def day ah waaw demal nañ de. de ko teewee àjjana. amiin yaa rabbal ah, waaw oustaz. ah waaye oustaz noo def mbaa am nga jàmm Baye Fall Fall na xamu nag ah soxna Mbène soxna Xadi lii lan la ah tapé la tapaa ngi maytu ku baax ngi sama gone yaa li ko nga ñu ñun géwél moom la ñuy tëri rek di wax. moo taxit danga mel ni très rapido ah. ci weñaana ba fecc di ba ah, fecc. ah dégg ay ki ñu ay xoolal bu fi wax lu bon de. ñaan di ko feccam bu feccam ba lii nga bink waaye feccam feccam ah. di ba feccam ah njaago looy wax këru këru ba feña feña feña ba ndogo këru ba usugi lu léegi fi de tàndoor ba yëpp Baye Fall yow la wóoroo de waaye ki ñu te dina ma am yow. jox leen limon mu dogu. limon am na dogu. ba oui. ba ree la ri ba ñaan ñaan indi bagage yi nekk foofu. oui. limon mi dem gi ba léegi mu ngi ci. Mm. ah déedéet tay dafa tàng la paix la Fall waaw. Baye Fall. nagul nit ku baax ngeen di toog. barke yéen a ngi Baye Fall mii. loolu moom moo ko nag. moom la nii dama la wax. dëkku kaas ku leen di simmi. waaw non waaw maa ngi jégalu de. man maa ngi baalu ñëpp ak di wax rek na ma ñëpp waaw dañ nekk ci weer boo xam ne ku ci nekk xam na. dama dugg si ci kër gi. waaw nu mu demee coow yu bëri na. waaye su loolu weesoo rek jàmm moo gën ay. waaw oustaz man daal maa ngi jégaluwaat ñëpp. tey ñaan ñëpp jégal ma. jégal waaw non man doon la ci tuuti rek jégal la ñëpp. parce que nee naa Baye Fall day rafet lool. dëgg xol bu laa biir lay yor. ci kaw ci kaw Baye bi maa ngi tuub sax mu mel ni boobu ba léegi. <laughs> waaw loolu mooy wootee naan ay maay Baye Fall bi. Mhm. waaw di di di jëfin di di di di jëf jëf yoo xam ne. jëfinu Baye Fall jëfinu Baye Fall. dëgg it loolu ay Baye Fall Baye Foo la rek. Mhm. dëgg la maa ngi jégaluwaat yëpp. day mhm. tegu nag ci yoonu Baye Fall. cum bu ko doon Baye Fall nag. moom dugaloon si rek. dëgg la waaye yoon bi moom gis naa ko te dinaa si tegu. incha allah incha allah rabbi incha allah. Cheikh Ibrahima jub la woote. waaw kii sama rakk la. waaw te olof day wax ni loo faxas mu wadd. boobu dafa takkul dëgg la. te kii man ak moom ba keroog mu may gas suul ba am koy suul cum kon àdduna du yàgg waaw ba ma xalab ko te yow gor piir nga ah li ma bëgg rek mu tegu si yoonu siraatal mustaqiim dëgg la mooy Baay Faal jëfee ko uh-huh. waaw ci kaw loolu kii oustaz man maa ngi doon kii fàtte sax uh-huh. daa am ndaw su dëgg si fii bu dëgg fii uh-huh. ñu naan ko kii bëggaloo mooy kii soxna soosu ñàkk bi ñàkk bi waaw waaw moom maa leen yëgal ni. su weer bi koor bi paase. waaw dama ko bëggoon tuubal takk ko daf ko som soxna. ah. day loolu ah waay loolu. loolu lu baax la. Mm-hmm. dëgg la. loolu baax la. Mm-hmm. bu gisee. waaw. bu tollee si takkum soxna. Mm-hmm. ñëw wax ko. kon loolu war a faam. dëgg la lu ñu war a doxee lu ñu war a jëfee la. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. bu ñu waree jàmm ak salaam. incha allah. ñu daal siy dox tànku Franc. jërëjëf jërëjëf benn doxalal ma lii. ndax moom mii may wax. doxalal mm-hmm. ginnaaw néeg bi nga doon wax. féetale naa la ko. yeneen néegi dinaa ko gérer. lu war ci kër dinaa ko def. mais loolu moom yow yaa ko moom. de ko luwee ku la neex nga fay ko di ko lijjanti say besoins. loolu man maa la ko kii Baye ñun fa buuse di xool nag fa la ñuy xool dawal. ni jaay ni lan la. weer bi feeñ. ah alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw yàlla def na ni moom mii. ba ñuy um. moo yéegoon sa kaw. ñëw fekk ma fii ni ma ñi jaay. weer bi feeñ na. yàlla defaat na ni. moo yéegaat sa kaw. ñëwaat ni ñu weer bi feeñ na. fekkee di nag. kon kay alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. ñu baale ak rek jullit la mm-hmm. te yëg la gis weer bi mm-hmm. ñëw nañu weer bi feeñ na te ñëpp gis nañu situation bi nañ ko demee dëgg la ñu tàllal loxo ñu def ñaar ñu joxante loxo ñun ñëpp ñu baalante ak ci bismillahi rahmaani rahim ñu def fatiha fala salaatul fatiha falaxen naasi ku mënul wax waxal amin ku ci mënul rek neel amin ñaan góor ak jigéen ñëpp day jigéen baax na góor baax na waaw Bamba neel amin tapalap neel amin amin waaw kay nay amin yi ci kaw amin rabbana alamin ñu gudd fan amin ñu fekkee ko ay déwén amin waay xam nga nag ah, leen imam imam imam yàlla gudd fan sa bis sama rakk ji baax imam Baye Fall jërëjëf jërëjëf yow it ñu mel ni yéen dañoo baax ci dëkk bi yàlla ngeen gudd fan yàlla ñu gudd